asalaamaaleykum chers internautes ci safo di seetaan Mindiss TV tey ñu ngi fii biir ODCAV dalal monsieur Elimane Faye monsieur Elimane Faye ñu ngi lay nuyu. Euh, jaajëf soxna si soxna diit maa ngi lay fay bu baax a baax euh, di jaajëfal waa Mindiss TV di jaajëfal également auditeurs Mindiss TV yi mais di beral nag nuyoo sama mbokk auditeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu nawetaan surtout ñi nga xamante nag ñoo bokk ci ASC yi bokk ci zone yi bokk ci ODCAV bi. monsieur Faye tey ñoo ngi lay dalal ci émission bu ñu naan Star Foot Star Foot boo ko déggee lépp lu ëmb wàllum football national ci la ñuy dox tey ñu bëggoon la laajte tey euh, monsieur fay dégg nañ ay rumeur nee nañ euh, nawetaan dina am nee nañ nawetaan du am léegi ñu bëggoon leerlu ndax nawetaan dina am ren ou voilà merci Dip ma lay féliciter également ci émission yi boobu nga xam ne sax dafa am une dimension nationale loolu yaakaar naa c'est une fierté pour le département de Fatick di leen di jaajëfal bu baax a baax question bi nga ma laajte nag c'est une question très intéressante dafa nekk loo xamante ne aussi se d'actualité parce que nit ñaa ngi laam-laam yi est-ce du am ak dina am euh, te loolu yëpp li ko waral mooy mbas mi fi nekk mooy Covid bi euh, ñu demoon ba am yaakaar affaire bi wàcc jékki affaire yi yéegaat. mu am ay jàngat yu bëri yoo xam ne nit ñi def nañ ko ci yaakaar naa ne dinañ koy jël en contre ba fexe nawetaan nu mu amee donc pour diir que ñun suñu wàllu bopp ñoo ngi ci disposition yi nga xamante ne moo ñu mën a yóbbu pour ñu football nawetaan donc may dalal sa xel te dalal euh, xelu ni nga xamante ne aussi ñoo yëgu ci wàllu nawetaan mais dañu jàpp pour l'instant fi ñu toll nii que ne nawetaan dina am que nekk yeneen activités yi di amee parce que ñaa ngi dox seen activité yaa ngi nii tew ñoo nga fii seet si ma ñi dem nañ marché ñi ñoo ngi voyager ñi ñoo ngi def nag ñoo ñu def di def seen activité ñun peut-être suñu mbir moo xaw a gën a complexe parce que dañuy toog foo xamante ne dafa xaw a exigu muy stade bi bari nit également te foofu dañuy yaakaar ne euh, condition yooyu mun na tax euh, virus bi ni muy doxee ci diggante ni ñi gën a yomb mais terewul nag comme ni ñaa ngi jël seen motuwaay ñun aussi dañu ne ñoo ngi dinañ jël suñu motuwaay ba te fexe daal nawetaan am donc ci perspective boobu lañ nekk instant bi ci sa biir wax ne nga wàllum disposition tey jii bu fekkee nawetaan dina am yenn disposition yoo xam ne di ngeen ko jël ñun dañoo seetlu que ni Euh, depuis bu pandémie bi ñëwee ñaa ngi naan geste barrière geste barrière mooy nañ soriantoo un mètre nañu jël ba ñuy bëggee def ay yenni acti nañ def lii nañu def mais terewul affaire yi di gën a di gën a di gën a yokku ñu ne nag ñun au delà de ces gestes barrières bon di dañuy yokk sax sensibilisation par rapport à la vaccination dinañ jël également Euh, ay dispositions pour que ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi di yëngu ci affaire yi euh, du nekk une question obligatoire mais képp koo xamante ni yaa ngi ci bëgg ci bokk nga ñëw nga vacciné wu nga comme sa nga mun a bokk ci li nga xamante ne ñun noonu la ñuy oote donc mu mel ni donc vaccination bi dañ ciy gën a ñaax nit ñi dañuy gën a dem par rapport à cette vaccination là pour que vraiment nit ñi aussi seen xel mun a gën a dal ñu mun a def activité boobu ñuy naan nawetaan. mën nañ ni ne ASC bi ñooy vacciné wu dugg wala ñuy seetaan si tey jii est-ce que ñoom dañuy am carte carnet de vaccination pour mën a am accès biir stade. waaw loolu suwee la rek suwee la rek dañuy souhaité képp koo xamante ne da ngay ñëw fekk yow am nga sa carte de vaccination mais nekkul ne nag dañ koy def une obligation parce que tey jii ñoo ngi naan vaccination man mii di wax ak yow jël naa sama première dose mais depuis le vingt deux juillet maa ngi xaar sama deuxième dose te mënuma ko am. parce que rupture bi fi am donc boo nee nit ñi nag obligatoirement ngeen vacciné wu door a ñëw dugg est-ce que yow tu mettras à la disposition des gens ce vaccin là loolu dañ ci peut-être interpeller autorité yi ni administrative yi nga xamante ne peut-être mun nañ yombal affaire boobu mais également autorités sanitaires yi nga xamante ne surtout ñoom seen si loolu seen loxo seen loxo la nekk donc euh, ñun mébét bi la ñu am yéene bi la ñu am mais nag condition yi nga xamante ne mooy tax mu mun a réaliser wu des fois nag du dépendre ci ñun kese dafay dépendre ci facteurs yu bëree bëree bëri. tey foog nañ foog nañ nga wax foog nañ ni nawetaan tey dina am parce que yéen ba tey yéen a ngi dute. non ñun dañu jàpp ne nawetaan dina am parce que fii nga fii nga ñu fekk ñi ñu toog suñu siège fi mu nekk nii lépp loo xamante ne day def affaire nawetaan ñun ci loolu lañ nekk mooy quoi faire les actes administratifs ASC ngi réaffilié réaffilié mooy ñi bokkoon bëgg ñëw bokkaat dafa am lu ñu leen di lu ñu leen di sas mooy li ñu naan réaffiliation nga war a def en ligne nga def inscription bi en ligne au nom de l'ASC ASC yi def nañ ko au niveau départemental sur les 320 yaakaar naa ne 3 279 yi xaw ma 280 yi si sama dernière situation def nañ ko ba pare am na ñu bees ñoo xamante ne dañoo bugg bokk siwaat waat ñoo ngi def affiliation joueur yaa ngi démissionné transfert yooyu ngay wax ñaa ngi transféré ñu ñuy jóge ASC bi dem ASC bële ñiy jóge Fatick dem feneen ñiy jóge feneen ñëw Fatick donc loolu ñoo ngi koy def bu ñu defee loolu te dañuy jàpp ne kon ñun ñoo ci dispositif bu nawetaan bi euh, dañu ne numérisation des actes administratifs ak euh, licenciés ak yooyu noonu fi mu nekk nii jot nañ machines yi nga xamante ne moom la ñu war a enregistré licencié donc yaakaar naa ne ñun bu ñu nee nawetaan dina am ñun dèjà ñoo ngi ci nawetaan lañ jàpp peut-être football bi lañ amagul mais ñoo ngi ci nawetaan bi et en dehors de cette activité administrative am na am na yeneen yoo xam ne aussi ñoo ngi koy doxal ci ci département bi tey jii boo xoolee ñun en dehors du football ñoo ngi développé euh, ñoo ngi programmé des journées de reboisement terrain municipaux yëpp dañ ko bëgg a reboiser ren commencé nañ activités yi de plan yëpp taxaw nañ ñoo ngi ci recherche gabion yi pour accompagner loolu ñoo ngi ci également projet bi ñu wax une active une ASC un champ de mille au niveau départemental gaa yi ngi béy seen tool yi ñoo ngi kii euh, institut ak les autorités ñoo ngi ciy liggéey bi war nañ am sax la venue du ministre de l' agriculture mu ñëw xool suñu tool yooyu donc nga yaakaar ne nag ma yaakaar ne nag ñun dèjà ñoo ngi ci nawetaan football bi rek moo des handball bi athlétisme beeg yooyu noonu mais nawetaan bi moom dèjà commencé na. tey euh, gis nañ yi amul. waaw tournoi yi amul parce que initié woon nañ benn tournoi la avec le DAGE du ministère des sports monsieur Ngom Nia bu ñu saluer au passage demoon na pour euh, def benn tournoi mais malheureusement nag bi ñu demee ba lancer affaire yi dafa fekk aussi période boobu lañ pic bi gën a kii. la affaire yi gën a waaw gën a garaaw que dañu jóge woon ci période boo xamante ne affaire dafa wàccoon mais ñu jékki-jékki moment boobu affaire yi rek de manière exponentielle mu jóg autorités yi aussi ñaan ñu sollicité moom ci boppam ne ko dañu bëggoon waxuñ la nga annulé mais nga repro nga nga ko tuuti reporté ko ba xam situation bi bu xawee wàcc ñu gën a mun a fagaru pour euh, football yi donc loolu moo tax presque boo xoolee tournoi yi ñu doon def pré saison bi ba ren bi mënagul am jusqu'à présent Euh, ñu seetlu ne recette yi bu équipe yi ba pare recette yi ñuy recevoir ñu gis ne ne dafa ndaw trop trop trop. waaw loolu moom dëgg la fa nekk situation boo xam ne aussi ñun def ñu métti ñoo ngi koy déplorer mais boo xoolee nawetaan ni muy fonctionner gis nga bi nga yegsee fii appareil bi caméra bi bu tourné woon lii fii mooy siège ODCAV mooy siège ORCAV déjà état état état nu mu tuddati bâtiment bi gis nga ni mu mel à l'intérieur lépp lu fi nekk. Euh, à su suñuy pexe am ñu ñu ciy jàppale mun naa ci citer le maire de Patar moo ñu jëndal ordinateur bi boobu ñuy liggéeye hmm, mun naa citer le président de la chambre de métier ventilo plafonnier boobu nga fi gis moo ñu ko defal mais à part loolu amul leneen loo xam ne moo ngi fi donc boo seetloo nag conditions yi ñuy dund nga xamante ne ñii peut dañuy nekk di góorgóorlu mais yoruñ moyens yi nga xamante ne mun nañ développer yenn yi parce que moyens yi fan lay jógee bu njëkk dañ doon jaay licence boo jaayee benn licence nga am ñaar dërëm ñaata licence nga mun a am nga mun a jaay boo jaayee benn vignette nga am fukk juróomi dërëm xam dërëm ainsi de ñaar dërëm dërëm ñaar dërëm dërëm moom ngay dajale do am benn subvention du conseil départemental bi nga xam ne moo ñu yore moo ñu waroon subventionné depuis 2013 mu suñu jox subvention deux 2013 ba 2021 kenn mosulaa subventionné maire Fatick bi ñu koy félicité au pata au passage daf ñuy may soit 75000 mun na ko def 75000 une année deuxième année bi mu nekk 55 50000 pour subvention donc à part loolu amul leneen loo xamante ni daf yuy dugg donc bu ko defee ñun fan la ñuy yaakaar parrain la ñuy uti parrain yi mooy les hommes politiques les politiques souvent ci ñoom la ñuy dem bu ñu demee négocier benn cahier de charge ne ñun lii la ñu soxla. dina la ne waaw accord de principe bi da koy am ngeen dérouler par rapport li ngeen amoon parce que du jël lépp en charge préliminaire yi li ngeen di football yëpp ay def seen dëbal dëbal recette stade ainsi de suite bu dara duggee ngeen fexe ba organiser ba match yi jeex moom final bi lay ñëw andi nag toute une délégation hmm? délégation boobu muy indi ni muy toll ku bu nekkoon sax ku ne dafa génnee benn mille teg ci sax dina ki mais lim lay jox après yow. boo xoolee ña ña fay gravité organisation bi li muy laaj boo ko ci génnee liy des ci mise bi pour nga joxe ko enveloppe du du du du toll noonu donc loolu mooy tax souvent gars yi di joxe ay deux cent mille ay trois cent mille ci boo xamante ne aussi toute une saison dafay dafay dépenser di def ay organisation pour mun a yegg si final ñëw ba foofu nga jox ay deux cent mille ay trois cent mille je pense que c'est une situation très déplorable mais nag ma lay xamal aussi que dans nos la situation kii kii financier bi aspect financier bi nekkul li nga xamante ne mooy priorité ñun dañuy jàpp ne ASC bi buy bokk dafa ñëw bokk pour nekk champion zonal ASC bi dafa ñëw bokk pour nekk champion départemental ASC bi dafa bokk pour nekk champion régional ASC bi dafa bokk pour nekk champion national bu ko defee donc boo jëlee loolu moo tax mise yi des fois ñu jox ko gars yi peut-être ni comprendre mën nañ ne ah nii lii lañ doon ñefe lii nii déedéet titre ba la ñuy défendre au niveau départemental au niveau régional au niveau national moom la texte bi jiital loolu loolu moo nekk presque li nga xamante ne mooy kiw nawetaan bu ko defee période boobu aussi yow nga mun euh, au niveau de ton ASC nga boole xale yi boole ñëpp mag ñeeg ndaw ñi autour doon objectif ko commun parce que nawetaan li mu mën a regrouper ci ay nit euh, bu jotee benn benn organisation mënatu ko foofu ngay gis maire yi paa yi xale yu ndaw a ndaw yi jeunes yi yëpp ñëw pour de la l'ASC mun a jóg ne ah nañ dem defar armeel yi nañ jóg defar lii nañ jóg defar lii nañ jóg defar lii donc bu ko defee nga xam ne donc luñ fa jëlee ci xaalis baax na mais buñ fa jëlewul dara tam ñu xam ne au moins pendant deux à trois mois toog nañu autour de l'essentiel pour taxaw seen askan je pense que loolu mooy utilité bi loolu mooy li nga xam ne mooy objectif principal bi nga xam ne moom la ñuy développer bu ñuy def activité nawetaan monsieur Faye tey ban message ngay la lancé autorité yi tey dugg nañ fii nii gis nañ seen bâtiment yi nu mu mel doy na waat trop trop tey ñu nga lancé appel pour ñu ñëw jàppale leen. waaw man nag damay bañ rek nga dem ngeen jël élément yi dagg ko recoller mm. ba xamante ne kenn du comprendre li ma bëgg mm. mais bu ma doon kii tey ñun au di door dañuy ñee mm-hmm. dañu naan ah yéen waa Fatick amu leen benn problème vous avez le président de la République vous avez le ministre des sports vous avez vous avez vous avez vous avez mënuñ ko compter sur les doigts de la mais waxatuma bu buñ ci boole woon tànk sax li ñu am ñoo xam ne daf ñu waroon mun a jàppale je pense que bu buñ koy compter fii du du ce